asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Touba ca kanam nooru daare ni ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyoo bu boobu eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam xamante ni mooy xalif général des Mourides di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te may ko ak wér naka noonu di ñaanal Serigne bu Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Fadal ak sëriñ Abdou Lahad Abibu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kanamu liggéey bi. kon leeral gi nga xamante ni moom la ñuy def tey mi ngi jëm ci mois d' avril avril 2020 li nga xamante ni jot na fee dugg ci Touba ci kanam ci ay koppar ak li ci génn ak li des ci compte yi. bu dee ci zone nationale bi la nga xam ni mooy fii ci biir réew mii di Sénégal ka ca jiitu di Touba muy dëkk bu sell bi nga xamante ni fi lañ nekk li fi jot a dugg toll na ci 31 millions. 66 mille 263 francs CFA 31 millions 66 mille 263 mille 263 francs CFA bu dee ndakaaru ci njiital wala ci ci ci njiital sëñ Alaaji Ndaw ci kilifaam sëriñ sëñ sëriñ Baye sëriñ Bousso dugal nañ 3 millions 601 mille 300 francs bu dee li nga xamante ni moo jaar ci Tigo Cash bi ñu gën koo xam ci Free Money mi ngi toll ci 73 956 francs bu dee li nga xamante ni moo jaar ci Orange Money bi ñu gën koo xam ci dièse 144 dièse 621 dièse li fi dugg toll na ci 23 millions 531 mille 813 bu dee li nga xamante ni dafa jaar ci. numéro orange money bi nga xam mooy 78 544 33 33 mi ngi toll ci 500 000 francs bu dee ci Mbàkke ci njiital soxna Adja Dior Gaye ak sëriñ Mama Fall ak sëriñ Abdoulaye ak sëriñ Mor Silla dajale nañ ci weeru avril bi 837 000 francs bu dee ci Diourbel ci njiital soxna Ndey Njaay dugal nañ ci Touba ca kanam six cent soixante mille francs bu dee Kaolack ci njiital Serigne Moustapha Touré ak ñi mu ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp ca Kaolack dugal nañ ci Touba ca kanam ci weeru avril quatre cent mille francs bu dee ca Louga ci njiital Serigne Moustapha Bassirou Mbuub dugal nañ ci Touba ca kanam ci weeru avril 877 800 francs CFA bu dee Kébémer ci njiital sëñ Góor a Sill dugal nañ 480 000 francs bu dee daayira Babal Ayaadi bi nga xamante ni moo nekk Añaam dugal nañ 40 000 francs bu dee Ndar ci njiital sëriñ Rijal Seck ak soxna Rama dugal nañ trois cent mille francs bu dee ba tey ca Mbour ci njiital Serigne Mor Sourang dugal nañ quatre cent huit mille bu dee ca Joal ci njiital Serigne Bassirou caw dugal nañ ci tubaa ca kanam ci weeru avril deux cent mille francs bu dee Goudiri ci njiital Serigne Dame Ba dugal nañ trois cent mille francs bu dee Ross Béthio ci njiital Serigne Alioune Ñing dugal nañ lu tolloog deux cent mille francs CFA bu dee Jifeer ci njiital Serigne Ousmane Ndiaye mois de mars ak avril dugal nañ deux cent cinquante mille cinq cent francs CFA bu dee versement anonyme yi nga xam ni ay murit yu am pas-pas jàpp ci liggéeyu Touba ci kanam te bëgguñu ku fesal seenu tur dañu koy jaarale ci compte Touba ci kanam yi ñu koy wax versement anonyme mi ngi toll ci 1 million 686 mille 113 francs bu dee Vélingara ci njiital sëñ Mbacke Gueye dugal nañ ci weeru avril bi 75 mille francs bu dee Kolda ci njiital sëñ Moussa Sène dugal nañ ci tubaa ci kanam 173 mille bu dee fuuta ci njiital sëriñ Mouhamadou faadal Dia. dugal nañ soixante quinze mille francs ci weeru avril ba tey bokk yi sancu baabe ci njiital Serigne Khadim Niang dugal nañ quarante mille francs ci weeru avril bokki jawe ci njiital Serigne Taalakan dugal nañ soixante dix mille francs ci weeru avril bu dee Fuuta Oko Jeere ci njiital sëñ ma Massayer Gueye ñoom dugal nañ 31 000 francs ci weeru avril tuubaatul ci taxawaayu soxna ummi Buso dugal nañ ci Touba ca kanam ci weeru avril lu tolloog 50 000 francs Wuro ci taxawaayu soxna mun a Mbàkke dugal nañ lu tolloog 62 000 francs ci Touba ca kanam bu dee Koungheul ci njiital sañ Yuusu Souran dugal nañ ci Touba ca kanam lu tollook trois cent mille francs bu dee Daaru Salaam jogo ci taxawaayu Serigne Bassirou Cissé ak Soxna Gueye dugal nañ ci tubaa ci kanam cinquante mille ci weeru avril bu dee Daaru Musti ci njiital Soxna Muslim Mbàkke dugal nañ vingt trois mille ci weeru avril bu dee jaayante yi nga xamante ni ku mel ne Serigne Moustapha Mbàkke mu ma Massamba di xalifa ma sàmba indi na ko ci Touba ca kanam mu ànd ak taxawaayu association bu am solo bu ñuy woowee Touba Daaru Xuddoos li ñu fi dugal tollu na ci un million quarante cinq mille francs di leeral ni un million yooyu Serigne ma Massamba Mbacke moo ko indi ci Touba ci kanam quarante cinq mille yi association bi ñuy woowee ànd taxawu Touba Daaru Xuddoos ñoo ko dugal. bu dee li nga xamante ni moom la ñuy wax extourne bancaire li nga xamante ni banques yi dañ koy dagg ci compte Touba ca kanam te ñu koy delloo si waatal banque atlantique delloo si na ci lu tollook neuf mille cent cinquante cinq francs kon mbokk yi bu ñu xaymaa li nga xamante ni moo dugg ci compte Touba ca kanam ci weeru avril ci zone nationale bi mi ngi toll ci. 67 millions 650 mille 900 francs CFA ñu baamtu ko li nga xamante ni tàbbi na ci gafag ak Touba kanam ci zone nationale bi ci weeru avril mu ngi tolloog 67 millions 650 mille francs 650 mille 900 francs CFA kon ba tey. li nga xamante ni facture la bu ñu jëndoon mu jëm ci wàllu fer jëmoon ci sànc bi ñuy wax Touba Njaareem ginnaaw bi ñu jëndee bagages yi ba noppi dañu caa defaraat ab remise bu 100000 francs kon di xam la ne 100000 francs yooyu dellu siwaat na ci gafag ak Touba ci kanam li nga xamante ni moo jëm ci wàllu leeral dëkk bi rawatina ci kër yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba ñu di ko wax éclairage domestique muy làmp yooyu nga xam ne indi woon nañ ko bokk yi di ñëw di ci barkeelu di ci joxe ñaari junni biñ ko biñ ko dajalee ci weeru avril mi ngi yamook quarante 000 francs bu dee ci zone Amérique États-Unis ci njiital Serigne Soy bu sekk ak bokki taalibe yi mu ko àndal yépp dajale nañ ci weeru avril lu tollook 4 million quatre-vingt-deux mille trois cent francs bu ñu ñëwee ci zone Europe ñu tàmbalee ci Angleterre ci njiital sëñ Fallou Diop moom dajale na ci weer wii di weeru avril deux cent soixante mille francs Italie ci njiital coordination bi dajale nañ deux millions sept cent quarante-huit mille cent soixante-neuf bu dee bisub jaayante bi nga xamante ni. amaloon nañ ko ci tubaa ci kanam ci njiital Baye Serigne géey muy jaayante yoo xam ne def nañ ko mu ngi tolloog 557 357 francs ci njiital coordination bi dajale nañ ci weeru avril 1 million 54 mille 212 francs Suisse ci njiital sëñ Njaga Aaw dajale nañ lu tolloog six cent zéro soixante seize franc CFA ci njiital Serigne Abdou Salam Faye dajale nañ lu tolloog quatre cent trente mille cent quinze franc CFA kon bokk yi bu ñu dajale li nga xamante ni moo jóge ci zone Europe tàbbi ci Touba ci kanam ci weeru avril mi ngi toll ci million millions six cent cinquante cinq mille. 929 francs CFA zone Afrique Côte ci njiital sëñ Mor Faasa dajale nañ 910 000 francs CFA Mali ci njiital sëñ Aline Wàcc ak bokk yi mu ko àndal yépp dajale nañ 321 000 francs Togo ci njiital sëñ Assane Mar dajale nañ 38 000 francs kon bu ñu xaymaa li nga xamante ni moo bàyyi ko ci Afrique ñëw ci compte Touba ci kanam ci weeru avril mu ngi yamoog un million deux cent mille francs CFA kon mbokk yi bu ñu boolee li nga xamante ni moo dugg ci compte Touba ci kanam ci weeru avril dale ci. biir dëkk biir réew mii di Sénégal ak continent yi ni ñu ko limee bu ñu ko boolee lépp mi ngi toll ci soixante-dix-neuf millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-neuf francs CFA total encaissement ci weeru avril mi ngi tolloog soixante-dix soixante-dix-neuf millions six cent quatre vingt dix mille cent vingt-neuf francs CFA kon mbokk yi ñu fas yeneen di ak yéen. comme ñu leen ko waxee woon ci suñ jëlbeenu kàddu ci li nga xamante ni moo génne ci gafag ak ci kanam jëm ci biir liggéey bi ci loolu taxawaay yi nga xamante ni Touba ci kanam mi ngi koy amal ci daaray alquraan yi muy sànc yi nga xamante ni tàmbali nañ ko ci daaray alquraan yi nga xamante ni moom lañ tànn ci atum mille 2020 li ci jot a dugagum mi ngi toll ci 8 millions 667 mille 400 francs fa bu dee sànc daaru xadim muy poste bu poste de santé bu daaru xadim lafa jot a dugg mi ngi toll ci 2 millions 370 mille 802 francs CFA bu dee poste de santé bu Touba Njaareem li nga xamante ni jot na faa dugg ci biir liggéey ba ci weeru avril mi ngi toll ci dix million huit cent soixante sept mille quatre cent francs CFA bu dee chantier bu université bii nga xamante ni moom la ñuy tabax fii ci biir tubaa bâtiment ba nga xamante ni tubaa ci kanam jël na ko fa ci weeru avril dugal nañ fa lu tolloog onze million zéro quatre vingt quatorze trois cent cinquante francs bu dee ba tey li nga xamante ni dafa jëm ci wàllum ndox muy adduction d'eau muy ndox mi nga xamante ni ñi ngi koy xëcc ci sancaan yi ak pompe forage yi nga xamante ni jotoon nañ koo jënd ci weer wi nga xamante ni moom lañ génn bi ñu ko xaymaa loole lépp mi ngi yamook 34 millions 817 mille francs CFA bu dee ba tey chantier Boberel ci weeru avril dugal nañ fa 1 million 793 mille franc fa bu dee poste de santé bu Touba ci weeru avril dugal nañ fa deux cent vingt deux mille neuf cent franc CFA frais yi nga xamante ni dafa aju ci woto yi nga xamante ni ñooy yor liggéeyu Touba ci kanam yi muy pick yi ak camion yi ak citerne yi. ak mboolem jumtuwaay yoo xamante ni day daw ci liggéeyub Touba ca kanam li fa jot a dugg ci ay ci wàll ak ci lu jëm ci wàllu frais yoo xam dafa jëm ci dépannage loolee lépp biñ ko xaymaa mi ngi toll ci 3 millions 353 mille 510 francs CFA bu dee li nga xamante ni moo dugg ci commission communication ci weeru avril mi ngi toll ci 5 millions. cinquante cinq mille francs CFA bu dee commission bi nga xamante ni ñoo yor lépp lu jëm ci wàllu reboisement ci Touba ci kanam muy gàncax gi nga xamante ni Touba ci kanam dana ko faral eh, di ko def ci dëkk bi ngir taaral gi loolu bi ñu xoolee li fi jot a dugg ci weeru avril mu ngi toll ci quatre-vingt-dix mille francs CFA bu dee li nga xamante moo soxal. payoor yi jëm ci wàllu salaire gi salaire yi ak charge fixe yi maanaam lépp loo xam ne jëm na ci location chaise yi ak lu ci aju ci courant bi ak yu ci jëm loolee lépp bi ñu ko xaymaa ci weeru avril mi ngi toll ci 3 millions 647 mille 500 francs français fa li nga xamante ni mooy budget bu fonctionnement bi bi ñu ko xaymaa ci weeru avril mi ngi yemoog sept cent cinquante huit mille francs CFA bu dee frais yi nga xamante ni banques yi Touba Ca Kanam lëkkalool di fa jaarale ay kopparam nga xam ne dañ koy dagg ci compte Touba Ca Kanam yi te ñu déggoog ñoom ñu war koo delloosiwaat waaye ci mois avril bi li nga xamante ni dagg nañ ko te delloosiwaataguñ ko mi ngi tollook trente quatre mille sept cent quarante sept francs mbokk yi. bu ñu xaymaa kon ci weeru avril li fi jot a génn ci konti tubaa ci kanam jëm ci liggéey yi nga xamante ni tubaa ci kanam naal na ko wala mi ngi koy jëmmal ci dëkk bu sell bii di Touba bi ñu ko xaymaa ci weeru avril mi ngi toll ci 82 millions 771 mille 609 francs CFA ñu baamtu ko mu ngi toll ci 82 millions. 771 609 francs CFA kon bokk yi ñu fàttali solde bi nga xamante ni moo fi nekkoon ci weeru mars ginnaaw bi ñu defee liggéey bu mel nii li desoon ci compte Touba ci kanam mi ngi tolloo woon ak million millions 218 mille 216 francs CFA. loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci compte Touba ca kanam ci mois de mars kon solde mois d' avril weeru avril li nga xamante ni moo fi des ci compte Touba ca kanam mi ngi tolloog 681 millions 144 mille 736 francs CFA ñu baamtu ko li fi des ci compte Touba ci kanam ci weeru avril. ginnaaw bi ñu génnee yi jëm ci liggéey bi mu ngi tolloog 681 millions 144 mille 300 736 francs CFA kon ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp Mame si la secrétaire général bu tubaa ca kanam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf